dama far nekk ci parti nekk ci coalition coalition bi am kilif kilifa gi nañ bu doon sama sago ci wàllu mandat bu ma leen ci dégg man nag du pour léegi nag monsieur le dama ne la déet bul ko ab jamono ba mu koy wax nag ak monsieur le ministre léegi léegi li ci nit ñi ñaa ngi ciy wax te kenn sanctionné wul kenn nit ñi bu leen neexee wax ci waaye man dama nekk militant discipliné boobu moo tax man duma ci wax ñun jàpp nañ fii ñu toll nii mhm. euh, yàlla dafa def ñu fal président Macky Sall mhm. en 2019 ni nga ko falee 2019 mhm. mu amoon programme bu mu bëgg tëral pour Sénégal donc ñun ci loolu la ñu nekk néegi ay sa sa sa nawle sa nawle ministre yi ñu ci bari ñu ngi ci tàmbalee wax ça c'est le problème man du ma ñëw sur les plateaux à l' nationale ku ci nekk yaa ngi yaa ngi ñëw ci sujet boobu di ci waxaat dañu nekk ci politique mhm. kenn ku ci nekk bu la neexee nga am comportement ak attitude ci politique mhm. man laa wax bu lu dul loolu dégguma ci di mhm. bien sûr voilà alors su euh, waxoo da nga koy soutenir weddi woo ko également mais ci sa ci sa ci sa xam-xam euh, ci ci wàllu politique ak valeur yi nga incarné ku wax le ministre Aly Ngouille Ndiaye am xëy na foo xam ne nit ñi dinañ la fa teg ci ay valeur est-ce que aujourd'hui euh, su fekkoon dafa taxaw pour sampat ndëndam pare nga pour soutenir wax waxeet boo xam ne def dina ko def waaye gannaaw aujourd'hui waxagu ko mais lu tax nga bëgg ma dugg ci ay mais pourquoi pourquoi ngay daw sujet boobu daw ma sujet bi j'ai dit dama yeneen sujet yoo xam ne nangu ma ci wax parce que c'est comme ça aussi man du man bokk mooy ñuy sànni seen wax. man dama du ni nga waxee nii ni ni la nawee que ñuy naw day sàmm waxam. pour ñu bañ koo sànni mooy da ngay wax bu wax jotee. waa léegi militant bi la ñuy laaj wax waaw bu wax jotee man danaa ci wax mais wax ci wax. mais waa parti bi ñu ci bëri jàpp nañ ne moom mooy seen candidat. moom mu bëgg ko wala moom mu bañ ko xam nga parti bi ñun ñëpp bokkul nuñ ci duggee. Hmm. kenn ku nekk noo duggee ci parti bi. man fii ma toll nii actuellement président Macky Sall muy suñu kilifa lii la ñuy wax ci loolu laa tënku. mais bu ñu laajee militant mais vous êtes pour une troisième candidature en général parlons pas de Macky vous êtes yow jàpp nga ne aujourd'hui euh, Sénégal war nañu fi toog samp ndënd sampaat ndënd sampaat ndënd une troisième fois. mais c'est pas d'être question de pour ou contre c'est juste une question de lan la constitution permettre. kenn ku ci nekk et si et jamais il se présente. nañu bàyyi ba si jamais ba en tant que sa xam-xam ci wàllu bàyyi ba taxaw gis nga bu si bi taxawee. les conséquences yi mu mën a jur aujourd'hui au Sénégal. s'il se présente demain. président président Wade defoon na ko fii depuis c'est pas la première. terewul dem nañu élection ak ay nit seen bakkan aussi. des conséquences quand même am nañu seen bakkan te demuñu élection. cest dire que au moment opportun. Mm. le président bu jëlee décision. les Sénégalais se prononceront, qu'ils soient avec lui ou pas, de façon très libre, avant même d'aller aux élections. Mhm. mi ngi noonu alors le retour du ministre Aly Ngouille Ndiaye ci ci gouvernement bi euh, nekkoon nga fi ministre après nga génn ci ñëwaat ci euh, dans les affaires ñu dénk la benn benn benn ministère alors euh, ce retour naka naka naka la la def yow ak objectif ak mbébét yi nga am pour justement li ñu la dénk nga xàll ko yoon ba mën a produire ay résultats lan moo waraloon nga dikkaat ci ci gouvernement question boobu foog naa ne président Macky Sall xanaa moo la ko mën a posé man xam nga damaa nekkoon ci gouvernement sant yàlla aussi. Euh, nekkoon ci gouvernement de façon euh, vraiment ininterrompue. de 2012 jusqu'au 1er novembre 2020. occupé trois ministères. énergie et mines industrie et mines. intérieur. 2020 euh, ma génn ci gouvernement bi. dem ci yeneen parce que it nag avant may dugg ci gouvernement dama nekkoon ci yeneen bi ma génnee ci gouvernement bi man yàlla suturaal na ma ba nekkuma politicien professionnel maanaam ah, dama am métier damay liggéey ma ci génnee toog noppalu tuuti reprendre sama liggéey président Macky Sall bi muy defaat gouvernement woowaat ma ma dellusiwaat jël sama liggéey boobu def ko en veilleuse mhm. ñëwaat ci liggéeyu gouvernement portefeuille bi ñu la dénk nit ñi jàpp nañu ne euh, loo miin la loo xam la euh, bañ la waxtaan ak yow ci portefeuille agriculture euh, ndax déjà amoon nga ci mbébét ak bañ la ko dénkee itam ndax itam am nga ci ay objectif par rapport ak li koy li koy jëmale kanam ak secteur boobu li koy jëmale. bon li ma li ma jàpp rek mooy président Macky Sall dénk na ma agriculture en deux mille vingt deux mhm. peut-être yéene bu mu àggale la parce que bi ma ko. njëkkee yéene yàgg na parce que président Macky Sall bëggoon na maa dem ministre de l'agriculture ba wax ma ko après ñu changé moom mu changé. xanaa lu mu la gis nga miin lool ah, <laughs> tool yi laak yu mel. waaw ah, moo tax ma ne la diggoon na ma ko. Euh. enfin diggoon na ma ko ensuite mu changé jox ma beneen poste. Mhm. ma dem ci donc bii pas aussi bi nga xamee ne bii ah, proposé nañ ma ko premier ministre daf maa ne ma président nee na daf laa bëgg dénk agriculture. ndax am na yaakaar ci yow pour que li nga xam ne lii fa la bëgg jëmee agriculture nga mën ko faa àggale. d'accord alors ñu ñëw ci beneen actualité. rapport Cour des comptes moom itam euh, jur na fi coow euh, li tax nag mu gën a métti sénégalais yi xëy na ci période bu mu tombeloon muy Covid 19 sénégalais yi sonnoon ci lool euh, ku ci nekk participer ci également ñun suñu kër gi sax joxewoon nañ fi donte bëriwul sax fukki million ak ak ak ñaar. ci participation Covid bi. alors ñu maa leen ëppale sax lu ma joxe. ah waaw mais au moins def nañ geste <laughs> alors ñu gis également rapport yi bu mu génnee dafa épinglé joxe ay recommandations yu bari bari bari ay rëq ñu gis. gis ci ngàbbin wu ñu yoroon wàllu wàllu Covid 19 alors sa première lecture d' abord ci rapport Cour des comptes la lay doon. waaw mais rapport bi am na solo xam nga rapport ñun ñi ci nekk di ci liggéey en vérité bañu nu rapport. parce que d' abord baax na dafay benn bët ki nekk ci biti buy xool li ngay liggéey te jàpp na ne booy liggéey alalu askan war nañ la di la saytu mën nga d' accord mën nga bañ a d' accord xam nga ki lay saytu moom. souvent day ñëw après coup yow ba ngay def yàng ci tàng-tàng bi plusieurs raisons mën na tax sax nga ne lii naa ko def plusieurs raisons waaye terewul booy def dafa may ay am yoon bu ñëpp war a jaar d'abord ci cour des comptes cour des comptes yàgg na fi cour de comptes 2012 bi président Macky Sall di ñëw amuñu moyen amuñu budget amuñu nit président Macky moo leen dooleel di leen jox budget di leen jox ay moyen ba tey Cour des comptes nga xam ne ñu bari bëgguñu fa a dem tey ñu ngi xëccoo pour dem fa kon lam ca jublu woon mooy kooku war ñoo mën a saytu man avant may ñëw di liggéey ci gouvernement banque laa daan liggéey ñu at mu ne dañ daan audit at mu ne dañu daan audité def rapport commission bancaire nga xam ne kii banque yëpp moom lañu ragal waaye dañuy toog at mu ne laa wax de waxuma dañuy toog dañuy audité commissaire au compte dañuy audité di préparer bu cour de bu commission bancaire ñi dañuy audité mais ñu audité jox seen observation yow tu dans le feu de l'action léeg nga d'accord léeg-léeg nga bañ a d'accord boo d'accord ne d'accord ma ci li ngeen wax tout simplement mhm. bii nii cour des comptes def na audit bi nee na mille milliards yi te loolu aussi dama bëgg mu mu leer. Mhm. gouvernement moo tànnoon ne bu ñu defee audit bi dañuy siiwal rapport bi wax ko ak bailleur te loolu lañu def. te loolu la ñuy def donc temps yàgg dafay am ñu def audit rapport bi daawul siiw bii par rapport bi génn na li am solo pour ñun mooy ñu xool ci rapport bi lan lañ ci wax lan lañ ci wax. mille milliards dërëm rek bu ci jàdd sañ nañu laaj fu mu dugg dërëm rek donc ñoom bi ñu seen rapport sur les quatre vingt cinq recommandations nee nañu ci yenn ci quatre vingt cinq yi am na ci loo xam ne lii jàpp nañ ne faute de gestion la yooyu am na chambre de discipline financière yoo xam ne yi c'est un c'est un quotidien du lu bees chaque année bu ñu defee seen rapport ñi nga xam ne ñi peut-être def na lu du yoon lu du nakas nun di difficile financière di leen di woo des fois mu sanctionné leen et puis des fois sax dañuy remboursé léeg-léeg dañuy remboursé ba retraite di remboursé quand donc dara beesu bi la ca des mooy ñu def ay recommandation ne nga ko yóbbu ci yoon te loolu mooy procédure mooy euh, je pense que ça concerne euh, quelque ministre mm-hmm. wala quelques ministère donc def nañu recommandation boobu yoon ngi siiw Sonko. nga ne nga ne nga ne léegi euh, bu nekkee dërëm bu jàdd sax war nañ ko mën a. saytu ministre budget ak finance génn ne bu dee rëq-rëq yi ci mill milliards yi six milliards la euh, ñenn ñi jàppee ne jàppee ko ne comme da koy minimiser. non non non six milliards quand même monsieur ministre. déedéet bu jàpp ne daf ko minimiser cest dire que. mais six milliards ci rëq-rëq. waaw de six milliards sur mille. Hmm. sur mille. attention c'est-à-dire que c'est ça même même bu dee un milliard sur milliards. c'est beaucoup d'argent quand ci milliard man dama ne la dërëm. waaw yaa tudd ko man dama ne la bu ci jàdd rek war nañ koo xool. Hmm. tout simplement. donc mu nekk six mu nekk dërëm mu nekk nangam lu mu ci mënta doon. Hmm. mais du tere si li wax nii c'est juste la vérité vérité bi mooy nee nañ nangamu milliard. lañ jàpp ne ñoom faute de gestion la yoon bi lii la ci wax lii ne nañ six mille milliards yi ñoom demandé nañ mu dem ci comme ni ko yoon waxee ñu saisir nañ euh, ministre de la justice. donc mi ngi suivre son cours normal. mais mais jusqu'à présent ci loolu euh, action judiciaire boo xamante ne à part jóge na ci ministre de la justice dem na ci procureur entre temps boobu ak léegi mi ngi bëgg a def diir mais. kenn amu ci benn information est-ce que aujourd'hui le gouvernement nekkul di jouer avec le temps ngir ñu mën a fàtte mbir dans quel intérêt je sais pas déggoo ma ne la bari na ci yoo xam ne mu ngi fay xew tous les jours te xamoo ko actuellement boo demee fi mu doon nii dis chambre discipline boobu ñuy wax ni nee naa la chaque jour que jëfee wala chaque année ay sénégalais yoo xam ne dañ leen dénkoon ñu gérer ña leen fay traduire ñu fay jël ay sanctions. le rapport est public donc lépp loo xamante ne am na ci ça doit être rendu public dana dana public. sénégalais yi xam naka la demee ak lan la. li ci amagum public mooy. mooy président cour des comptes saisir na garde des sceaux. garde des sceaux jox ko procureur. voilà léegi nag bu ci dara amatee dana am public. y' a pas de raison que ñu koy denc de toute façon mënuñ ko sax laq. alors souvent les les rapports des des corps de contrôle euh, nit ñi dañuy jàpp ne du du am suite. ñoo xam ne dañu jege le pouvoir épinglé et ils ne sont jamais inquiétés loolu aussi euh, souvent nit ñi dañu koy tudd xam nga aussi des fois bind ci ay livres mais du am benn suite bon xam nga léeg-léeg aussi les gens la dañuy dañuy jaawale xam nga déjà par exemple pour des comptes dafa am yoon bu ko tëral dafa am nu muy fonctionner inspection générale d'État tey yoon également dafa am nu mu ko wax ne noonu la war a doxalee bu fekkente ne kaa am na moom day bind rapport am jox recommandation président mooy xool lam cay def donc c' comme ça que ça marche et puis dañuy joxe ay avis des fois yoo xam ne aussi c' est pas des avis qui ne sont pas incontestés ouais. Mm-hmm. parce que ñoom it ñoo ñu ne yam ñoo bokk fu ñuy ñoo bokk fu ñuy jàngee ñoo bokk voilà kenn ku nekk daa am branche bu suivre rek léegi ñu wax la loo xam ne yow d'accord ci ñu ne la nangam nga bind d'accord ma ci boobu bu demee ba war a dem fa yoon ba dem fa yoon fa yoon nekk ba ma xam doon ne benn rek lañ ko atte mu jeex. rapport yi wala wala contrat yi dafay bëri sànq wax naa ñoo xam dañ leen di tudd bu ñu fàttalikoo contrat Petrotim tuddoon nañu la ci a présent peut-être nit ñi jàpp nañu ne am nañu jàpp ne amul dara lu leer ci loolu aujourd'hui lan nga ñu ci wax est-ce que jox dëgg ñuy wax ne souvent bu amee rapport nañ ko génne Je parle du contrat Petrotim. Hein. Contrat